dara du taxaw dañ koo dañ koo defar defar defar defar defar defar def ba xamatuñ nan la moo tax nañ leen tegu ci lenn mooy lu pii bi oote képp ku lay gëmloo ne wallaay la azim ne mu ngi yoree lu Medina yorewul nañ dem ba ci kanam ngeen gis képp ku leen di tere naan Medina nangam ak nangam ay ko xamul pay bi bi pays bu dangereux surtout nag ndaw ñi def leen dànk àddina bii du dara de yaakaar naa lépp ñëw li olof di wax naan toq toq moo gën yuréet yaakaar naa mooy li gën actuellement na nga gis xale bu ndaw a ndaw boo xam ne daf lay leer na la vingt ans wala vingt cinq ans bu ko nekk mu xadam est-ce que loolu c'est normal yow da ngaa judd bay def nañ def ndànk am na âge yoo xam ne nga bugg a nekk muqaddam bugg a kaalaw bugguñu topp c'est très dangereux nañ def ndànk américain américain topp nañ def ndànk bu baax a baax ci li boobu waxtu boobu ci benn soit nga jàngi wu nga uti liggéey nañ liggéey su ko defee muqaddam du métier nga am ko moo gën a wóor nga am looy def boole koog loolu moo ëpp sens fuuf gis nga boo demee ba am indépendance ci sa bopp yaakaaroo kenn kenn du la mën a wax jaaral yaay xam li nga bëgg te su boobaa da nga mën a jaarale ñi nga ànd ak fi nga leen bugg a teg parce que doo leen yaakaar am na taalibe yoo xam ne fekkee ñoo yore dépasse bi ñoo lay yóbbu ñooy nanga léeg-léeg nga wax ñu ne sëñ bi da li muy laaj dafa bëri man de sant yàlla damay business damay bay maa ngi ci xari maa ngi ci nag damay liggéey pour lan lan am laaj ma ñi laaj leen ma maag suma daay rek amul raay amul neexal nii nga dem sa yoon parce que looy looy jaay rek man ëppale naa la ko ba tegal la ko yaa ngi koy gis lenn mayuma ko nag lu may liggéey damay sol suma jiit a laajee suma t-shirt dugg ci suma business ba mu normal man ne ma solaa suma waaw mën naa def weeri weer ñi xam nañ man maa ngi Dakar te pourtant kenn du ma gis fet xaboolu ko may aw jot damay liggéey nañ leen liggéey pour nga am foo nga liggéey taalibe amatul de billahi taalibe moo fi topp chaque jour nangam nangam ah baax na mun la sëñ bi dafa soof waaye loolu day laaj rek laaj loolu moo neexul baaxul koo ko dëkkee rek mu jëpp comme sëriñ si ñoo mën a tudd laaj su ma ma dam surtout jeune mag ñi moom li leen yàlla may may na leen ko ba pare mais ndaw nañ def très attention mu xaddam du métier nañ leen liggéey am suñ business boole ko mu xaddam bi day gën a neex rek su gaa su gaa ñëwul yow yaa ngi ci sa ruq di di organiser muy dem loolu la de mais bu toog fii bëgg na lépp lépp da nga ko am te doo ñàkk ah moo tax actuellement nii man de TikTok bi damay rey rek parce que da ngay toog gis ku doon sëg kaalaw gis nga siru bii gis nga bii man ay ñun fu ñu jëm te li ci ëpp nag ndawi ndawi pay bi du ma du ma tudd tur parce que bu tuddee seen tur yi amee ci dina damay tooy waaye léeg-léeg ma rey man kii nag gis nga bii boo suma bii loolu barki démb fii man waaw yàlla baax na mën nga bind ay asraar def ko mais dugg ci wàllum faj moom ku fa naan day bu soobee yàlla gisuma la mbaaw parce toog toog rek doon faj kat toog toog rek suba doon yii lii yëpp lu ko waral rek ba uti bañ lu la lu la jox rek parce que dafa yomb mais Sénégal yi tamit dañ leen ko yombal dafa mel ni loolu lañ gën a bëgg ku leen nax lañ bëgg mais vraiment ñu delloowaat suñu xel ndaw ñi rawatina ndawi pays bi ne yooyu jëmul fenn chaque jour ñu def leen vaar nit ku nekk xale war na mën a bañ ñu def la vaar nga wax lii surtout ci football yi wala ci làmb yi wala ci nangam dañ ciy gis yoo xam ne yàlla léegi sax ñu ngi ñu ngi muus lu suñ ciy teg nga doon gis ku njëkk lay teg foto baay teg ay ay yem nekk ci ay pexe mbir yi du pexe mbir yi liggéey la fexeel ba am indépendance ci sa bopp soo ko amee rek da nga mën a dimbale ñi nga ànd ak te doolee tax nit ki boo yaakaarul ci moom dara da ko mën a wax dëgg su fekkee ne moo lay mboqal waaw ñëpp xam ngeen olof mu ne ko ëmb sa ëmb sa sax dal ëmb sa kees man de du ma ko may benn taal du ma yaakaar benn taalib benn sëriñ laa yaakaar Mawlana Cheikh Ibrahim ñun ñëpp nañ leen dem yaakaar ko ci lu yoon ci tegu te sabablu mais yaakaar ko ba pare te sabablu wooy du dem da ngay sabablu sabablu mooy lan soit ñu ngi ci jàng mi ñu ngi ci nangam nañ leen liggéey lekk ut ci ci jaamu yàlla la bokk commerce ci jaamu yàlla la bokk nañ fexee liggéey am am bëri ci pays bi su ko defee liñ bëgg danañ ko man